alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi. voilà jërëjëf mbokk téléspectateur euh, Kossy TV. émission bi nga xamantene ñu ngi koy tëral àdduna yëpp waaye nag rawatina um islamique ndax ku ne xam na ne ajuma message yi fu nekk lay jógee ko dem si jilutu yàlla yi tey nag ñu ngi fii tey xamantene ni nii fale imaamul akbar imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé di taxaw di julli waaye ki ñu tamit bokk si imamu Medina Baye bokk si imamu juma ji di ko wax ki nga xamante mooy suñu sëriñ bi suñu lépp de Cheikh Ibrahim mu Cheikh man Fati mi nga xamantene ni nii dëgg-dëgg liggéeyam si Mawlana Cheikh Ibrahim kenn waxatut fi mu toll tey nag émission mu barak bi dalal la tey ji si juma ji rawatina fi nga xamante ne imaam bi taxaw yan kàddu nga am tey pour jox ko euh, askanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir ñu xam lan mooy njëriñal juma. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala Seydina wa Mawlana wa man wala ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di waxtaan mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi fàttali rek ndax wa zakkir fa inna zikra tanfa'u al muminin waye ku min fi di fi julli aljuma da nga xamne ne lépp lu aju ci njëriñ yi ajuma bàyyi waxnako na ci ay xutbaam khutbal bi nga xamne mom la jaglel aljuma mo ci gëna feñ ndax fofa lam njëkkee moy kep ko xamne da nga sangu bisi aljuma hadith la yonon le wax ne ci yonent bi ne من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح إلى المسجد فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة كيف كو خمنا دا جوغي ngaa jógee sa kër sangu sangal ca ngaayal farata ji ci ajuma bu fekkee dem nga ca saa su njëkk sa dafa mel ni jaamoo nga yàlla lu am ni gëlëm bu fekkee saa su ñaareel si nga dem fu mel ni yaa ngi jaamoo yàlla lu mel ni eh, nag yëkk saa ñetteel si mel ni jaamoo ngi yàlla lu mel ni am xaaf xaram xaaf saa su ñetteel sa nga mel ni ku jaamoo yàlla ganaar saa su ñetteel sa nga mel saa su sa nga ga mel ni ku jaamoo yàlla benn nen kon dom adama bu nek warna am ité ba dem ci saa su njëkk sa puisque man ta passé am yool bu em ni nga bayiko ba ba tollu ci yool bu em ni rek nenu ganar bu doon yefi adina yi kuñ na fi bo démé tay heure midi da nga am fukk bo togué ba midi demi nak bo démé deureum ngay am kon da nga dem ci midi lolu bokku na ci njëriñi aljuma ajuma ci biir xutba gi bàyyi waxaat na ci ne eh, nettali ci toujours hadis ne diggante ajuma ak ajuma ak diggante weeru koor ak weer weeru koor ak diggante julli juróom ak juróomi juróom yàlla dana baale bàkkaar yi yu mag bu fekkee teet nañ bàkkaar yu mag yi loolu tam bokk na ci njëriñ ngëneel li ajuma eh, ngëneel yi bëri na lool waaye li ciy loor itam bari na lool tey ajuma war nañoo fàttali ne nit ñi bés bu imaam bi tamee taxaw ci minbar bi di xutba euh, nit war a wax danga nga war déglu xutba gi seetantal ko seet la muy wax nga jëfee ko am na xadis bu rod ne euh, ñu jëlee ko ci imaamuna imaamu Malik mu ana solo ko wanane ne waxtu imam taxawé di khutba bon ak sa mbokk sa eh, eh, ki nga dëndal ne ko diglul kon laxawta faqad laxawta wa man laxa fala jumaata lahu xolal lolu rek diglul yow mi nga xamné yaangi yaa ak nit ki ci ben sappé nga wan nit ki ne ko diglul rek yow diglul gi nga ko wax nonu kon sa amato juma ah kon nit ñi war nañu bàyyi xel lolu جوخ جمعة تجينم نجيس جمعة جي نيني بو إمام دي خطبة نيجي وخ نيجي وقتان نيجي فيلم نيجي دفلونك لو خمنا دبو تك جمعة تجلس ليرك إذا قلت لصاحبك انصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له لولا يرون تبوخ كي غادي ilimaan bi di xutba boo ne ko déglul rek yow sa jumaa yàqu na léegi nag xoolal danger bi nekk ci jumaa ju yàqu xoolal yool yi ni mu bëree ak nit ku sàggan ba sa jumaa yàqu te am na xadis bu bàyyi di tëjee xutba gi bi nga xam ne Ibn Abbas moo ko solo mu ne man tarakal jumaata salaasa jumaayin mutawaliyaatin faqad nabadal islaama wara azara ku sagan ba ñetti juma passé te julli woko yow eh, sanni nga l'islam sa gannaaw mu xat beneen hadith ne man tarakal jumaata salasa jumaa'in mutawaliyatin kutiba inda allahi munafiqan fi kitabin laa yumxaa wala yubaddal kep ko xamne da nga tok ñetti juma julli woko tamo ben ngant bind nañ la ci yàlla ne yow naafeq nga mbind moo xam ne duñ ko changé te duñ ko soppi duñ ko far te duñ ko soppi kon daal juma lu am solo la na ko nit ñuy fonk fonk ko nag mooy nga jël ay tegginam yëpp jox ko ko bu fekkee ne bu jumaa jotee nga sangoo sa kër ba set wecc jël sa yére yu set wecc waaye ñëw ci jumaa ji doo dégloo doo déglu xutba doo déglu julli kooku dafa mel ni yàq ñëwut yéen a yam te boo ko defee ñetti jumaa yi taxaw eh, tegaloo yow génn nga ci islam bàyyi nga islam sa gannaaw bind na la ci yàlla ne naa fekk nga kon loolu ñu ngi koy fàttali ñépp ci baatab mm, wa zakir fa inna zikra tanfaul muminin tey jii nag xutba gi nga xam ne moom la xutba moom la imaam xutba mooy xutba gi nga xam ne moom la bàyyi bind ci wàllu aj ndax bàyyi dafa bind xutba xutba ci munaasab bu nekk comme fi mu nekk nii jóge nañ ci weeru koor ñu ngi jëm ñu ngi ci euh, ashurul hajj moo tax euh, munasaba bu nekk rek xutba boobu la ñuy xutba boobu tam xutba fàttali na ci lu bëree bëree bëri bëri. ci ne ñoom saa bu ñëwee benn xutba lay xutba kon chaque jour. déedéet bàyyi dafa bind xutba ci lu nekk mu euh, maanaam munasaba bu nekk rek bàyyi bind na ci xutba bind na ci weeru koor bind na ci jumaa ji ma doon wax léegi bind na ci aj bind na ci gàmmu bind na ci uxuwa bind na ci affaire euh, ci euh, ibaadaat lépp bind na ci munaasaba bu nekk daal bàyyi bind na ci xutba te xutba gu nekk rek matale na waaw xutba aj tey moom lañ xutba foofu itam lañ fa fàttalee mooy ngëneele aj ak itam ni ko yàlla faratalee ci kenn ku nekk ak ngëneel yi nga xam ne moo nekk ci diggante aj ak aj ak diggante omra ak omra loolu yëpp bàyyi wax na ko ci xutba gi wax na cee wax a wax ba nettali xadis boo xam ne yonent bi dafa am ku ñëw ci moom mag ne ko yaa rasulullah inni jabaanun wa inni daif wa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alayka bil waa ji dafa ñëw ci moom ne ko man yonent bi dama ragal te dama néew doole mun maa dem xare ji yonent bi ne ko defal xare bi nga xam ne amut xeexante amul rayante amul loolu yëpp waaye mooy aj boo ko defee dafa mel ni yaa ngi jihaad jihaad ju xam ne jihaad la ci yoonu yàlla am na xadis boo xam ne nettali na ko mu ne alxajatul mabru wa laysa lil xajatil mabrurati sawaabun illa al aj guñ nangu daal amul fay lu may aljanna kon aj guñ nangu yàlla nañu ko yàlla may ñii di dem aji yàlla leen yàlla yóbbu ci jàmm yàlla delloo si leen ci jàmm يالا نانغو لين سين اج خطبه جي امنا سي كنا كنا ني سيطان موي نونو جوليت مو نونو الاسلام واي سي خطبه جي تام باي نتل لا سي حديث بو خامنا ني بس بي غنا متي سي سيطان بس بيم غنا خيبو بس بيم غنا مر موي بيسي عرفه لول نك دارا وارالوكو لي مي لي مي غيس ني يالا mu ngi wacce ay yermandem ci jami di len djegal seen i xam nga cette année mom yëpp yeb moy ni nagn def bàkkaar yalla mbugal len bolé len mom bes bobu nag nga xamne yalla day wacce ay yermandem di djegal nit ñi seen bàkkaar loolu tax moy bes bi gën naqadi ci mom bes bi gën raglu ci mom bes bi dim mer bes bobu la kon dal euh, ci gatal li moy dundini Medina aljuma ju jot dañ indi khutba ba googu dafay wax ci li nga xam ne moo tolloog jamono jooja kon ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu. émission jumaa mubarak bi ban kàddu nga ci ñaaxaat maam waa soppe Kossy TV ñu si liggéey. waaw ñu gën a góorgóorlu rek parce que fi mu ne eh, média moom daanaka moom mooy doxal àddina si. Eh, média yi eh, nag bi ci ëpp solo mooy biñ moom ñun nga xam ne luñ soxla fa lañ koy jàllalee. kon li ñuy digal mbool mbokk yi mooy ñoom tam ñu góorgóorlu jàppalante ak yii nga xam ne ñu mel ni Kossy TV ba seen liggéey yii nga ñuy liggéey eh, yàlla gën koo gën a tasaare di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla dimbali ñun ñëpp yàlla nañu yàlla aar ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke Cheikh Ahmad Tidiane ci barke Baye Yaram bi